jambam be yasin jaal jaaloy mbam be Mustafa ma ñu tànn Yaasin gëjoon naa way ngir a ñi sàcc taalif te seen baay Seex Baasin fa Yaasin ngërëm te aban na kon jaayin lu taalif ne xeleer war la yam njàccaar fa Yaasin walay ndaamaan di sooru ñolor gu dangan xanaa dafa rempam dafa réer a Yaasin ku tëkkale Bamba ak sëriñam dafay nar ndiki he jofandal giseesu ko mbar fayaasin pay waajaab muriidam alaamol ko mën na ko def suweesu ko war na yaasin ko xam bay way nga far way ngeen ji yonnen ndegam na ba te yaasin Sëriñ Tuuba ni man sama giyer gi may bay du déglu bu xool ba fa yaasin Sëriñ Tuuba ne kuy taalif na taalif ta saaba mbaca walliya mbaca yaasin kuwaita waya ciyon nan mbaci wayam ala fiya nga wayde ngeen koloya fa yaasin toyon nan dafni waajo mata gaway nde warlo nde warlo naala nde warlo naala nde warlo naala ajana famu yaasin lilee man ma def geewalam te baatin ndi way Seex Bamba mbor mi footo yaasin mborom tar baaba moo ma jaral di taalif di toor di tooro ngir li mu doon yaasin sura naam wakaalaani laamin leel naa Bamba maa ngi lay yaasin ku lay jaay na sam xel dem ci mi taar ba yàlla yónnee ko saaru yaasin ku lay jaay na sam xel dem ci motaar ak motaar yi ñoo yaasin ku la jaay taar na sam xel dem ci maayi kafar bakaare kookale moo yaasin ku la jaay taar na sam xel ci haali ka gindi sa maam ya reeran wan la yaasin ku la jaay taar na sam xel ci moxtaar ka yàlla ni Mustafa ma ñu tànn yaasin ku la jaay taar na sam xel ci yaasin imaamul mursaliin na kiree yaasin muhammadum mooy turam wa ñu sant baayam wa ahmadu mbaata hamidu mbaata yaasin te hamidu mooy nimar naa ci baatin te amadu mooy rahmatu naa fa yaasin njool makka sidina muhammad turam yi mu am turam yi mu am dañoo lamboo ci maana li mu xeetam ci xeewal fa yaasin tulob yi la man la ñaari téeméer wa isaan ci ramadraayul xayraat yaasin bari tur daana takk la mbar ci maana tami mbar kenn takaale ba ko aat yaasin ni sajjina muraayu kaña paraamoon jebul ca munas naa ko yaasin judam bare farna ko kanjan yaasin amul ci araab xuraysin xam na yaasin di yaa doom yaaram doom yaaram satu makaab madinatu masaasin di yaaram doom yaaram satu makaab madinatu masaasin di yaaram doom yaaram satu makaab madinatu masaasin su ngeen dégloo ma lim tey maam yaasin te wax taar ba fii kenn du fi na yaasin su ngeen laa ma lim maam yaasin te wax leen ba fii kenn du fi mel yaasin muhammad yaari abdullah yaasin waat bi bunaa fa daal fa yaasin dinaa labbayka naa labbayka jaaran ca ndigal maam ja est-ce que yaasin xusayoon ak kilaaboon yaari maamam wa murata seen i taara gi mel ni yaasin wa kahfan ak lu way yunta ca xaalib ña taara te taarab taar yaasin wa fihron teg ca nabdiron teg ca maalik ña ngay safi jant ngi cee ñeel yaasin kinaanata ak xusay ma tayaari maamam ñi leen weeri laa wer laa fa yaasin wa mudrikatun wa yaasun wa madurun ca seeni kanam leer ga newaan di yaasin nisaarun teg ca max din goor gu sempal li ma ladd naan fee la ñu yam fa yaasin ñi la jàpp ci leeri baatin ñi la jàpp ci leer yor yaasin ñi la jàpp ci ya jàpp ci yaasin turub taaram ba mu leen soor ba noonu may ba noonu aasim sirif la ñu ngir yaasin ma wax leen nag ni Seydina Muhammad mel ba tudd Yaasin tudd ngeen ji mbindeef tudd Yaasin ma wax leen ni Seydina Muhammad mel ci ba tudd ngeen ji mbindeef tudd Yaasin njool ma ka bindam tiram yaa jot mu sempal borom ba ko maar du cuune te Yaasin Seydina Muhammad bindam ba tiram yaa jot mu sempal borom Bamba ko moldu cuuna takkaara yaasin deful ab dooñ ba tax ni cam fa yaasin Seydina Muhammad ruyul ba ni fëtëx na gaa ñiy di fangat di fang ko mel ni mbaami tool fa yaasin ba ni kongo te yaramam du laal weñ si wóol ba ni lambaxit ak ko jëm na yaasin di sa kompulaati sa bañ rocca saafal ñeneen taxa saf dumay taxawaayu yaasin ñenentu xasab du mooy taxawal yaasin njol ma karey sa kumbaliiti ñenentu xasab du mooy taxawal yaasin wetam dafa njandi biram sew mu xeereer lusul noojul li xam ne laaj fa yaasin loxoom yi sabab yi sell yàlla fu dem te baaraam muy niroog sooroor yaasin njol ma ka bakkanam ba ni fann mel na nataal tuñum yeddi mel ni budug ñi fel ma yaasin teyoon nan kat doxin lu ñu def ci rahmatullahi sukooto te temp mbaala laa daagoo fa yaasin beñum yeddi saf këyit gi ma yor di mel xel muy mel di mel fa yaasin ngenem la di saf sooy ba ma gis fa di leen lay ba tariñu ko kaara yaasin sakal yàlla ak njamal ajaal yaa laab la yaasin judd waale du maasu yaasin sakkal yaa anjamal yaa laab ajaal la yaasin judd waale du maasu yaasin bëtam ba ni bàq per ba di saf gën a gis li mu yer fa yaasin son wateek maa jox sama kàttu bi ne yow say candidat nee na wii yaasin su defoon wote maa lay jox sama carte xol bi ne yow say candidat nee na wii yaasin su defoon lamb yow jaal yaa di saambar dabal doo joggil jaggil daane ñi fi kontor Sëriñ Tuubaa fa yaasin suma tooba fa tooba suma tooba ku sopp Bamba te sopp Yaasin su ma wayoon nag su ma wayoon ñee na ku noonu Bamba te noonu Yaasin su ma tooba wuy su ma tooba su ma tooba wuy su ma tooba ñeel na ku sopp Bamba te sopp Yaasin su ma wayoon nag ñeel na ku noonu Bamba te noonu Yaasin su ma wayoon nag ñeena ko noonu Bamba te noonu Yaasin turub taaram ba la saali wu door caaw doj gilem ni ca tëll génn di nga fa Yaasin xudaara ko ray fa dandama ne alayhim musiba du yam ca borom fa Yaasin xudaara ko ray fa dandama ne alayhim musiba du yam ca borom fa Yaasin xudaara ko ray fa dandama ne alayhim musiba du yam ca borom fayatin tirub taaram la sottee saam mu raw asamaan rafarnaahu yaasin wa ma xatala wa ma salabu wa ma xatala صلب وما قتل وما صلب ولكن لألا بيقون في سنجر ياسين وما قتل وما قتل وما صلب ولكن ليس وخون تنجر ياسين تنجامي دوا جنا لا فسنا لا غنتل ñëwal ma baara sew ji la léegi yaasin te léegi sax man maa ngi ci yow booban ma jaale yow jaal boo ma jël keneen du ma jël fa yaasin te léegi sax man maa ngi ci yow booban ma jaale boo ma jëlul Seydina Seydina Muhammad ba ma jëlul kenn du ma jël fa te maa ngi ci yow mbabat may jaar yow jaar te maa ngi ci yow mbabat may jaar